yu sa collaborateur yi nga àndal di am naqar pour toog fii tey ci bisu tey bi yow mi nga xam yaa war a yokk li nga xamante ni mooy jafe-jafe askan wi la premier décembre muy courant bi monsieur le ministre ku ne xam na ni le travail de Senelec ça fait deux mille neuf cent travail de Senelec du ñu fay courant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 kon tey buñ la falee yow 2016 nga nekk directeur général Senelec nga wax ni am ngeen loo xam ne ci bénéfice 40 milliards ba nga koy wax jamaa defe ni danga nga koy waxoo rek pour politique mais waxoo ko woon pour lu am te aussi jàpp naa ni bëgg place walla bëgguñu fal la warul tax ngay wax loo xamante ni du dëgg kon il faut que ngeen xam ni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 wax li nga xamante ni mooy li war a doxal seen Senelec ak li nga xamante ni moom nga war a liggéeyee ñun dey jàpp naa ni amul ñu benn importance wala ñu doon loo xam ni Sénégal yi di ñu seetaan ak gàcc gi nga xamante ni moom la ñu war a yor Sénégal yi ëllëg pour que ñu jël loo xam ni pour que maanaam di ko jox ki nga xamante ne mooy ministre de l'énergie monsieur le ministre en tout cas bis bi ñu indil du ñu ko watee tey du ñu ko watee ëllëg ndax bu ñu ko watee war nañ Sénégalais yi voter trahi nañ Sénégalais yi ndax ñun aska moo ñu taxa tax a nekk askan moo ñu fal. s'il vous plaît te am na loo xamante ne nii. mais s'il vous plaît laissez-le terminer. Honorable député, laissez-le terminer.